moom nga xamantene mom vraiment c'est un syndicaliste mu ngi def liggéey bu am solo tamit ci biir Sénégal représenté les transporteurs vraiment ñu lay remercier vous avez la parole. mais nag saa yu demee France fàtte bu demee Italie fàtte ma sama boy la. asalaamaaleykum wa rahmatullah. du ma ne maa ngi nuyu waa Njorox damay ne maa ngi nuyu waa Banja. di leen baalu àq di leen baal àq. di jiital si nuyoo bi. suñu papa chef de village nga xam ne jaar nañ fa léegi ak délégation bi ànd ak doomam Omar Omar ne ko bul egg ci jataay ba toogal fii ñu fekk ci la fi comme que mag nga te yaram bi neexut toogal fii ñu jéggal ko ko ñu xam ne ñun ñoo ko nee na toog jéggal nañu ko parce que njobootam a ngi fi di si teg sama papa Mbay Ngom di si teg sama papa Abdouloum di si teg suñu mag Moussa di ne sama mag la dégg nañ say kàddu jërëjëf di nuyu waa gox bi yëpp di nuyu monsieur le maire Mamadou Faye non du ma fàtte Mamadou parce que sama maire Dias Mamadou Ndion la sama maire si nga nekk Mamadou Faye yàlla dafa def ñun Bandia ñoo am lu kenn amul ñun ñooy benn dëkk buy nàmp ci ñaari ween benn bi ñuy nàmpee jas benn bi ñu koy nàmpee sinja ñun rek la ko yàlla defal si gox yi ñu jot a dem yëpp di nuyu aussi chef de village Pathé Ciss di nuyu jibi mu fi def ñaan ñoom Moussa sama mag sama métier di nuyu ñu fi nekk ñëpp rek ak suñu doyen da Faye nga xamante ni métier mi ma yore sama kilifa la si muy métier transport daaw ñu ngi lay nuyu di nuyu jeunesse su Nioro yëpp Omar Ngom dañ lay sant di la gërëm suñu doom nga suñu jarbaat nga te bu ñu waxee loolu kenn duñu fi weddi tey jii bu ñu fekkoon ni looy jaay luy jaay la man bu ma la jaayee kenn du ma laaj jeme laaj njëgu Omar anamu parce que dama am si yow cër bu mot sëkk te nga wone ko tey boo xesee ñëwee dugg si géewu politique nga fekk si te ñu xam ne am nga yar am nga teggin maanu nga te li nga xam danga koy waxtaane boo ñu woowee ñu wuyu si la boo ñu woowul ñu wuyu si la balaa may fàtte may nuyu sama jigéen maman moom laa àndal ak Alassane Faye boo ñu woowee dinañ la wuyu si parce que yalla dafa def bandi amuñu fi sens interdit fuñu neex du ko conseil municipal la ci maire bu dias waye yakar naane ne ba léegi kenn taxaluma fenn lu may wax nak bu ma ma dem fa gaaya dem waye man lima ñor moy xam-xam ak defar duma bok ci coalition suuf si du ma coalition morcellement man bu may dem damay bokk fi nga xamante ni ka ma ëpp xam-xam kàddoom egg fu ma sama kàddu eggul ma ànd ak yow pour ñu jéem a soppali gox bi parce que li may lu ma xam la conseil municipal la sept ans si ren depuis 2014 maa ngi jas suñu gox am ay doom yoo xamante ni yàlla may na leen ab njàng ba ñu am diplôme yu romb diplôme ya gaaye yore waaye tey jii ñu ne ñun nañu yem diggante jam ñaajo ak foore bànja pour ña doon yilif suñuy bàyyi nekk boo génne campement fa fi département mbuur ñooñu bëgg tey ñu ñu ne ñun ñoo bañ loolu moo tax candidature Benno ay nit xeex ñoo ñu bokkal parti man ak Mamadou Faye ak ñëpp ñu xeex pour ñu jox ko yeneen nit si jas ñu def ko fii si Sinj ñu def ko fii si campement mais yàlla dafa def nag ñetti ñooñu ñëpp ay directeur lañu ay DG lañu muy DG Mamadou Ndione bu jas DG Faye bu Sinj ak DG Charles Ciss bu Popenguine ay doomu saafeen lañu yu jàng bi am seeni xam-xam yor seeni diplôme jiite yoo xamante ni ay kër yu mag lañu Sénégal tey bu ñu ñëwee ñu ne nañu bàyyi ñooñu abd mi nga xamante ni chauffeur la buy bind turam a bi da koy juutal n bi nekk si ñaa départu ñaa bi daf koy wengal ñu ne nañu jiital ñooñu borom xam-xam yi si suñu ginnaaw yéen di ngeen ko nangu kon nañu yeewu yee suñu njaboot ñu xam ne joxoñ bi ñu joxoñ kilifa yii joxuñu ko pour ne dañoo bëgg si dara maa ngi doog gisee ak moom tey te bi ma ko gisee nangul naa ko li mu doon bi sama mag Ismaïla waxee si moom laa xam ne kon man la ma tànnoon jas ne Mamadou Dione la waaye Omar moom tànn siñ ne Mamadou Faye la kon yàlla mu ngi bëgg a boole te suñu ànd bi yemul fii campagne yii di ñëw dinañu jóge jas ñëw campagne si la Sindian dinañu jóge jas dem Popenguine yow di nga jóge Sinja ñoom fekk ñu jas parce que dañoo bëgg suñu gox bi soppeeku ñun ñoo sës si capital am lu kenn amul lu kenn amul ñun ñoo ko am ñun ñoo am aéroport international ñun ñoo am pooru Ndayane ñun ñoo am ciment du Sahel ñun ñoo am eau minérale du Kirène ñun ñoo am lii tabax Sénégal muy carrière yi waaye ñun ñoo gën a dellu ginnaaw région bi nga xamante ni fa la président Macky Sall la dëkk ressource bi ñu am région de Fatick amu ko ñun bu ñuy tëkkale si li ñu am dañ koy dañ ñuy tëkkale ak yu mag yi mais tey ñun ñoo gën a dellu ginnaaw lan moo ñu delloo ginnaaw dañuy jël koo xamante ni ku mel ni man la njàngam soriwul xam-xamam soriwul ñaari dërëm ak ñetti dërëm lay wut ñu daal koy jël jiital ko bu ñëwee lan lay toog pour ci yéenay mujjee soppeeku parce que maire da ngay am carnet d'adresse dama né Serigne Gueye djok ëpp leen xam-xam waye liko may limu am ba tay kep kuy jël exemple Sénégal nga ne commune bu sandjara té sandjara bu njëkk ba jëndi xar tabaski dong lañ fa doon wuti tay ji kep ko né commune bi gëna dox ci Sénégal ñu la lan moko waral. dafa am xam-xam am carnet d'adresse fu mu yëngu yóotu si bitim réew da koy jot kon tey jot na yéen ñi nga xamante ni am ngeen carnet d'adresse ngeen jiite gox yi ngeen jël ko cinq ans mu changé mu soppeeku ngeen delloo ko askan bi parce que tey salaire u fay na fukki maire salaire u fay na fukki maire parce que maire salaire am surtout commune rurale yi weesuwul trois cent mille kuy fayeeku huit million dix million wala six million ngay ñëw di xëccoo commune xëccoo pour loo def sa poste da nga xëccoo pour loo askan bi dem kanam PG boo gis rek fay na fukki maire kon nag nañu dellu soir suñu xel ñu xam ne politique bi tamit du saaga du xaste ay mbokki kese lañu waaye dama ne commune Sinj ñun nañu xool lan la mos a defal Banja Njorox lan la fi def bu dee éducation jas lay jóge bu dee santé jas lay jóge bu dee leneen jas lay jóge te ñu am fi population boo xamante ni mat nañu population comme ni ko xale bi waxee ñu jàng bi am xam-xam mais commune da ngay gox bi nga xamante ni si yow la bokk mais tey jii Bandia dafa waroon mel ni panaal parce que boo nekkee benn dëkk ñaari commune seetal la yaa gën a war a rafet ci commune yëpp dëkk yëpp kon nag fay Faye Bandia jox nañu la loxo tàllal nañu la ko te duñ ko banque dañoo bëgg le 23 bu Mamadou Ndione affaire bi day wàcc nii lay def bu jëlee jas 18 heures 18 18 heures 20 nga jël Sindia 18 heures 25 DG jël Popenguine ngeen boole seen tool jooju ngeen def benn commune waxuma sax intercommunal dañu koy def benn commune boo xamante ni ñu xam ne découpage moom moo ñu séparé woon waaye yàlla def na ay borom xam-xam seq nañu ko boo duggee ci commune boobu mu mel ni Paris loolu la ñuy ñaan yàlla kàddu yaa ngi gudd ñoo ngi sant ñëpp gërëm ñëpp. di ne daal le trois yéen jigéen ñi votel leen xam-xam bu leen votel xaalis. votel leen xam-xam xam-xam mooy tax suba seen xale yi doon wax fii bu ëllëgee mu ñu am royukaay bu rafet mais bu fekkee ni xaalis la Abdou bu la joxee cinquante mille boole ko saaku ceeb nga votel ma te doo gisaat dara jaru ko xam-xam nag boo ko votee développement ba dalay laal laal sa jëkkër laal sa doom laal sa sët dëkk bi dox